amati mbégte ak bànneex di leen dalal ci live instant yi seen youtube bi wér te di leen jox information yu wóor abonné leen te bu leen fàttee bés cloche bi ngir bépp information bu dugg ngeen doon ki ko njëkk a gis damay wax dama ko yéen yéen ay gérer sécurité foofu mu wax leen ko waa APR dañoo recruter ay ay de nervis nervis yooyu nag ñu ngi fépp taxaw ñu ngi ci VDN bi ña nga Parcelles Assainies ñenn ñi planifié nañu dañuy ñëw attaqué sama kër ñuy jël nag Sénégalais yëpp à témoin parce que loolu Macky Sall ci boppam Macky ci boppam ci liñ ñu wax ci information. ak soxnaam ak doomam ak benn général bu nekk pare ñooy coordonné directement ak nervi yooyu di leen jox ay instruction bu dee nag Macky Sall guerre civile la bëgg ci réew mi du am waaye lii mu nekkee bu ko continuer liy tooy ci moom lay jóge loolu daal laa bëggoon a wax jël Sénégal yëpp à témoin je le dis en français également, pour la communauté internationale, et dire aux gens que Macky a planifié avec sa famille, son épouse, son fils, d'après les informations qu'on nous a remises, et qui sont des informations de première mai ils ont recruté des centaines de nervis armés pour euh, s'attaquer physiquement à nous, s'attaquer à notre domicile, s'attaquer à notre convoi et saboter la manifestation d'aujourd'hui. Et l'autre objectif de ces nervis, c'est de se mêler aux manifestants pour ensuite commettre des exactions et des forfaitures qu'on pourrait imputer à la coalition Yewi Askari. Je tiens à informer l'opinion nationale et internationale. Ce que je dis, les forces de défense de sécurité sont informées. Elles le savent très bien, mais elles ont reçu l'instruction de ne pas sévir contre ces milices de Macky Sall. Si l'objectif de Macky Sall, c'est de créer le chaos dans le pays, de créer une guerre civile, je dis à M. Macky que c'est voué à l'échec. il ne peut pas mettre les Sénégalais les uns contre les autres. Mais lui et son groupuscule de personnes, parce que tous ces nervis-là, nous savons qui ils sont, nous savons qui les recrute, nous savons où ils habitent, nous avons des audios, nous avons des vidéos, nous savons qui ils sont. Et ne représentent rien par rapport à ces milliers, voire ces millions de jeunes qui sont prêts et déterminés. donc je dis qu'il n'y aura pas de guerre civile au Sénégal, mais Macky Sall risque de finir très son second et